mi quotidien nee na jamono ji réew mi yëngu ndax ci diwaanu Médina foofee militant yi nga xam ne ñoo ànd ak Bamba Fall ci gëm sa bopp ñoo agressé militant Cheikh Baye maanaam jàppante bu taratar moo amoon ca diwaanu Médina yéen kaay gi di wal fajiri xëy di ñu xibaar naan ñu neexul ba neexul waaye nag campagne élection locale yi nii nga xam ne moom la commencé gars yi war nañu see wax ndax violence bi commencé na te gars yi demaguñ fenn na violence ca diwaanu Guédiawaye amoon na violence boo xamante ni jégg na dayo ñi nga xam ne ñooy imam ñoo ngi woote nag yoo xam ne maanaam lépp si jàmm lay jeexe Bamba Fall ñu xëy fekk ko ci yéen gi nee na jamono ji ma ngi ci yoonu victoire yéen kaay gi di Le Quotidien ñi nga xam ne ñooy waa Corrète muy kuréel gi nga xam ne ñooy àtte taskatu xabar yi ñoom nag daat nañu woon ñi nga xam ne ñooy média yi di journaliste yi ngir nag ñu baña amal lenn loo xam ne jëm na ci wàllum par journal bi nee na waa Corrète parparlo gi la ñuy bañ réew mi Quotidien nee na am na ay quotidien yoo xam ne waa Corrète daan na leen di épinglé ngir parparlo goo xamante ni daat nañu koy commencé yéen kaay gi ñu xëy fekk fa waa Forum Justiciable ñoom nag ñoo ngi woo ay élection yoo xam ne lépp si jàmm lay am non à la violence yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum violence bi ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak Toussaint Manga ñoom joxe nañu exemple bu baax ca diwaanu Ziguinchor ndax seen cortège yi bi ñu dajee maanaam dañoo joxante loxo kenn ku nekk jaajëfal sa morom maanaam kenn ku nekk wéy yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na campagne électorale bi élection locale 2022 en tout cas kenn ku nekk jamono ji ma ngi bàkku kenn ku nekk ma ngi wane sa bopp yéen a kaay campagne bi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko doon def ca diwaanu parcelle yàlla baax waaye nag pëcc xoo ko fu ko waaye nag dana koy passé maanaam programme xam ne dara baaxu ci sa organisation ba yéen a kaay gi ne nag diwaanu parcelle bu ñu waxante dëgg pagaay dëggantaan moo fa amoon di pëcc xoo Amadou Ba Moussa Sy Abdoulaye Diouf Sarr ñii seen nit ñoo fa doon buuxante ki nga xam ne mooy musa Sy dafa lànkoon kandaare ne du jox micro bi Amadou Ba jël micro bi jox ko Abdoulaye Diouf Sarr yéen a kaay ne na Aminata Touré ma nga woon sa ndaje ma dafa mujj kedd dem Sator Mbaye ma nga woon sa ndaje ma dafa mujj gedd dem na ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Ba bu Medina bi mu ñëwee ak délégation dañu ko bloqué yéen a kaay gi ne wax ji gudd gàtt benn bokk yaakaar maanaam meeting bi nga xam ne moom la ñu ubbee sa Parcelles Assainies dara baaxu boo xam ne fu ko waaye ndax daan koy passé yéen a kaay gi di Vox Populi nee na Barthélémy Dias de tous les défis yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr moom nag dig na waa Parcelles Assainies ay xëy ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Soham na pare na jamono ji ngir liggéey ak état moom ne am na ay candidat yoo xam ne ñoo ngi digge loo xam ne leer na leen leeru yàlla ne mënuñu ko te nag loo mënul loolee yàpp askan wi la kàddu yu soam war dina la ba tey ci journal bi ñu xëy fekk fa Pape Diop bokk gis-gis candidat ville de Dakar daat nay wax ne ba mu jugee ci mairie Ndakaaru ba léegi amul benn changement boo xam ne am na ci mairie Ndakaaru moom Pape Diop nee na bu ñu ko joxe waat mairie bi dina ko liggéey ba mu ne booy journal bi ñu xëy fekk fa Mambay Niang Sénégal 2035 daan nay défier ñi nga xam ne ñooy ay adversaire ama meeting nga xam ne moom la doon def ci terrain ACAPES Parcelles Assainies maanaam foo sànni mbatt mu tàkk moom Mame Mbaye Niang daal nay jël kàddu gi nee na jamono ji ak mbooloo mi nga xam ne maanaam moom laa fekk fii ci Parcelles Assainies mbooloo mi ma dara jamono ji samay adversaire bu ñu tëddee du ñu nelaw ba yandoora daal nay dellu si ci li nga xam ne mooy ab programme ma daal wax ne Moussa Sy bi ñu ko falee ci a Assainies ba léegi amul lenn loo xam ne def na ko ci diiwaanu Parcelles Assainies jamono ji nag Dakar émergent la wax ci journal bi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko seen campagne ñoo fi nga xam ne mooy sa diiwaanu Ziguinchor na Ousmane Sonko ñoom Khalifa Sall ak Aïda Mbodj ñoo ñëw daal di koy may renfort yéen a kaay gi di leen jeko Ousmane Sonko daat nay wax candidat yi nga xam ne ñoo nekk Ziguinchor nee na leen bu dee ay góor ngeen a maanaam ñëw leen kenn ku nekk wane sa programme yéen a kaay gi di li Quotidien ak Rewmi Quotidien xëy diñu xibaar naan ñu Sahara Iyane Thiam daat nay yëngala si Cap liberte ci week-end bi ba mu yëngoo ba pare nag di woote li nga xam ne mooy ak jàmm maanaam campagne bu civilisé moom la Sahara Iyane Thiam jamono ji di def waaye nag daat nay wër bërëb yi nga xam ne mooy bërëb yi ñuy jaamoo yàlla seet na imam yi seeti na mosquée bu liberté 5 ak bu liberté 6 woon askan wi ñëpp ci ak dal bañ a nag dugg ci li nga xam ne mooy a violence nee na nag coronavirus bi maa ngi fee maanaam nañu jël matukaay yi moom Zahra Iyane Thiam daat nay wax li nga xam ne mooy a programme am ci diwaanu Sicap Liberté yéen a kaay gi di libération bàyyi mbir moomee ñëw ci taximan boo xam ne ab violeur la ndax bu yebee ay client cab garage la leen di yóbbu di leen di tëdde teg nañu ko loxo yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na Tahirou Sarr mi ñu doon tuumaal ko ci ak njombe goo xam ne toll na